jërë ngeen jëf mbokk internet yi dal leen ak jàmm mu mel nag si nag tey jii rek ginnaaw ba assemblée nekkee foofu rek député di wote rek lu jëm si wàllum loi bi xamante ne si ne njiitum réew mi rek daan na bëgg mu daal di jàll ñu rànnal rek li nga xamante ne si ne rek moo di yooyu la élection ginnaaw booba sel ay yenn candidat tamit ñoom daal di rek jubali foofee sa conseil constitutionnel ku si mel ne Cheikh Tidiane Dieye Mame Boye Diao ak yeneen yi candidat gis nañ sa sax mandataire bu ko keddu Bassirou Diakhar Faye mu doon Amadou Ba bu Pastef Pastef ñooñu nag ñu àndandoo rek dem dugal foofee tamit ab raquette foofee rek sa assemblée nationale pour rek wax ñoom rek ñoo mën am pouvoir ñoom rek ñoo am dogal bi pour rek ñu a toxal li nga xamante ne si ne moo di élection yi foofu sa conseil constitutionnel lan sa jot mel na nag ña ngay def seen pour campagne jamono ji foofee sa Tiwaawan ñu ne ñoom ña ngay def seenu campagne ci dox kon nag ñooñee ñoom ña nga sa liggéey ba arrêté wul benn yoon li nga xamante ne mooy li leen yoon may ña ngay wër rek di def seeni i campagne pour waajal rek élection yooyu ñu dëgmal ba tey c'est le 25 février 2024 ndaxte noonu jàpp nañ na ba tey kooku di njiitum réew mi amul benn dogal amul benn pouvoir pour rek ajane li nga xamante ne si moo di yooyu élection conseil constitutionnel moo ko waroon def. te def ko kon nag ñoom danay wéy di continuer di def seen pour liggéey ñoom nag ña nga sa campagne bu baax a baax moo doon waa euh, pire kon nag jamono euh, ba sa assemblée nationale lan fa neemee ko ba député ya ña fa nekk pour rek jàllale loola nga xamante ne ne procès ndax dina jàll wala du jàll ak lu askan wi ña leen diglu ña ngi leen di xaar ndax te nag kenn ku ne nag da nga sa jël sa responsable boo sa watee ko sa baram dinka nga ko layoog sénégalais kon askan wi yëpp ña nga leen di jox nopp di leen xaar.